mbokk yi ñu ngi jëm ci le grand combat de la soirée drapeau Mame Diarra Fam Guèye production moo ko tëgg ànd ceeg euh, son staff sabi buñ ko waxee den tudd Abdoulaye Ndiaye mbokk yi booy xool li nga xam moom mooy forme physique bu naaru sogas jaaxal na ñu bëri tey ci làmb ji mais nag je vous donne l'info moom naaru sogas démb lay door a accepter combat bi parce que dafa defe ne woon combat bi dootul amati ba dafa doon réclamer maanaam da doon sàkku pour ñu yokkal Musique yi Dieye production loolu la def moo tax combat bi préparé wu ko sérieusement ah d'après mes informations nag liñ ma wax Jackson moo ñu ginnaaw Naaru Sogas moo ñu wan kanam l'expérience face à la jeunesse mais Jackson bu mu yóbbaale fukk de jeunesse am Naaru Sogas booy xool tey àndul ak waa écurie xam sa cosaan ñeneen laa gis ñu àndal te andiwul forme andiwul forme mi ngi arrière c'est l'expérience. c'est l'expérience expérience lay bëree attention au coup fatal attention au coup fatal Jackson bul naagu ndaanaan ngay bëreel nag donte il n'a pas bien préparé ce combat donte préparé wul combat bu la fukk jeunesse yóbbaale dal moo lay mën a génne ci combat bi xel moo la ci mën génne Jackson moo ñu wan ginnaaw attention au coup de naaru sogaas attention ay dóoru naaru sogaas nag loolu rek laa mën a wax parce que avec précision lay dóor moom buy dóor day xool te mag buy bëri la ah, combat bi boo xoolee da naan lii du combat combat bi boo xoolee da naan lii du combat dégg nañu les analyses de Max Mbargane Saliou Ba manager Ibou Kane bu sunu làmb Fatim na baax Dakar Actu Daaru Sogaas Jackson mi ngi dox ci kawam Naaru Sogaat tey tuusul dafa ne day bëre ba pare ta loolu làmb dàq na ko jàpp na ko daan na ko jàpp na ko attention Jackson rëpp na attention aux erreurs de Jackson erreur jeunesse mi ngi dóor Jackson mi ngi dóor wéyale na ko Naaru Sogaat mi ngi jéem Jackson tagal na ko daan na ko daan na ko daan ko c'est normal c'était prévisible jàmbaar la mais daanu na jàmbaar la mais daanu na il n'a pas préparé ce combat démb lay door a accepté combat bi dañ ko yokkal xaalis mu jël combat bi waaju ko. waaju ko bëree waaj la jàmbaar la jàmbaar